non ñun CNG mooy suñu kilifa ñun ñëpp ñun dañuy nangu lépp lu fi état teg te jaarale ko ci yoon ñu réglementé ko muy justice ak muy police yi ngay gis ak muy gendarmerie ñun ñëpp ñun dañ leen di jox cër. Mm-hmm. ndax loolu institution la CNG nag état moo ko fi ñoom ñooy jiite bépp sportif bu jëm ci wàllu làmp ñoom bi ñu demee def nañ seeni waxtaan génne seeni i man mi ngay gis nii contre Ndiaga Diop doo gis gaa yi di ko wax mukk Ndiaga Diop bu Pikine hmm. dañoo bëri arbitre ma dóor ko góos daw jàpp ci ngembal daw plaqué ko mu dóor benn fes bi boobu kat appui gi yëpp amul mu dóor benn fes bi ñu jox ma victoire hmm. bi ma demee seetaanaat sama télé seetaanaat ko hmm. man maa génnaat ne daanu ma ko te doo dégg journaliste yu bëri ngi fii tey ñu ngi may bàyyi Thierno Ndiaye laaj ko dama génnaat ne kii arbitre jox na ma victoire mais daanu ma ko dama laaj waa Pikine kon ni sportif yàgg na ci ñun te booy bi ñu yor c'est li ñuy li ñuy bañ rek mooy ki nga xamante ni mooy rapporter du jiitu arbitre. dafa polémique waaw polémique yi am yëpp ñuy rapporter la ndax ñoom Tafa Ndiaye ku bàyyi ku bàyyi woon ci ginnaaw temps yi ci ginnaaw Tafa Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm ak El Hadj Mansour Mbaye xam nga ak El Hadj Ablaye Naar Samb jëli dara am sax ñu ne xaar leen arbitre. Hmm. ndax arbitre c'est le maître moom mooy souffle mooy def lépp mais léegi nag. arbitre yi bëri ci dëkk bi. mais xam nga yow su ma déggoo sa sa wax yow mën jàpp ne xaar yéen doon ay sportif ah lu tax maa ngi ñëw parce que yow yow nee nga ne arbitre c'est le maître du terrain nangu nañ mais arbitre CNG moo ko fa teg mhm. CNG bi ngeen dugg ci làmb ji da ñëw bind ay ba jox leen li nga xamante ne mooy tax nit ñi jox ko ndam mhm. li nga xam recours yi mu ngi ci statut li nga xamante ne moo di statut làmb mhm. yéen boo ne ma adhéré ci nga xamante moom la CNG wax bëri ngeen ci combat abi abi ci sifle na peut ñu bëri jàpp na abi arbitre dafa juum yaay bu ñu xoolee visuel xool image yi xool affaire yëpp ne kii wax dëgg yàlla ki ni nga xamante ne moo di euh, def na quatre appui bu defee quatre appui ba CNG ñëw jox clé ndam dañu war a accepter ne xam ne seen mbër daanu na. mais ba boo nee ne ay CNG def na lii. benn yoon ngaañu ko. mais ngeen nangu dis bi xam ne CNG def ko aussi. CNG génne na loolu def ni ñee ñoo am ndam mais ñun am nañ droit di feete ñun wala amuñ ci droit bopp